jotaay bi nag dañ ko daf pour yegal askan bi jarale ko nak ci bërëb bi taseekaay xibaari wax leen nak bi la project bo xamne nak mom moom wara daf ci walu yoon nga xamne na tollu nak ci ñaar fukki yoon yu bes yo xamne nak dañ ko dal di ko tabax fi ci fi nga tay mo nek ci combo bi fi te lool nak dina tollu nak ci juroom fukki kilomètre commencé ko nak fi nga xamne tay mo nek Batin Hadin Highway dinañ ko yokku nak bam dal di nag ay dual carriage Manam ñaari auto mën rombo ndor ak yeneen ñaari auto nek ci benen côté balé dem dem nak ba fi nga xamne tay mo nek ci airport de ba Corner li yep nag da nek na lo xamne nag bind leen képp koo xam ne nag yaa ngi am ab kër si boobu côté te nag mu nekk kër boo xam ne nag yoon bi marqué nañ ko boo xam ne nag yow euh, bi moom nag joxe na background information bu dal di nag tënku si bi project mu ne OIC Gambia ñoom nag ñu ko commencé niki nag si atum 2018 gannaaw boo xam ne nag project bi ñu ngi continué di def te nag waxtu jot na pour nag nag ñi dal nag continuer def seen liggéey mu ne ñu ngi sant commencé nañ nag dem si yoonam te lii nag nekk na ñaari yoon yu mag yoo xam ne nag projet ko dal di ko def te léegi nag si jamono ji nag mu ne dal nañ di def seen kéemtulaay kàttan pour gis na juróom fukki mètre xam ne nag urban routes la muy dal nekk fii si mi Kéba Tarawale nekk koo xam ne moo nekk project manager bu National Road Authority moom nag wax na li li nga xamante ne nag moo nekk implementation process boo xam ne ah, def nañ ko si yoon yi ñu war a yokk fii si biir réew mi nag yokku yoone laaj na nag pour ñu am nag bayal bu yaatu lii nekk moom si jamono ji mu ne gis ne nag si jamono ji def loo xam ne wala ñu da war a def pour gis ne nag yoon bu nekk rek ñaari côté ne daf ne nag si liggéey pour gis ne nag loolu yëpp mu mën am si kaw yoon bi euh, continuer tim di wax jéego yi nga moom la ñu jël pour defar li nga moom nekk yoon ni ñu defal fii Tidiane Da boo nekk team supervisor bu physical plan moom nag wax na ni nga xam ne tey moom lañ fas yéene liggéeyee mu ne nag ni ñu dalee liggéeyee si digg yoon bi lañ koy commencé nag compté naka la ñeent fukki si côté bi te nag ñeent fukki mètre si beneen côté waaye nag képp koo xam ne nag sa bagage am na si ab yàqu na si wala mu nekk sa kër wala mu nekk loo xam ne nag bitig lak ak yëpp dañ mën a nag seen office bi nañ continuer dal nag daaneel foofu noonu waaye nag nguur gi ne leen dox li nga xamante moo nekk seen i ndàmpaay lu toll si ñaar fukki yoot yu bees yoo xam ne nañ ko def di ko tabax fii si biir réew mi mu nekk P1 ba P20 si jamono ji nag koppoor bi toll na nag si juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti millions de dollars boo xam ne nag dañ ko dal di ko jébal réewum Gambia lii nag dina nekk loo xam ne nañ ko dal di ko def pour dal nag yombal li nga xamante mu nekk dambee dikk bi si jamono joo xam ne ñi ngi def sommet bi ak su sommet bi dal di jeex fii si biir réew mi ah, ñi nga xamante ne nag ñoom seen kër yi marqué nañ ko pour fas yéene koy génne nañ ko dal di ko génne waaye nag nguuru Gambia moo leen di jox li nga xamante moo nekk seen ঝিন্ডাম পাই